kii. yéen ñaar bu ngeen bu ngeen farale moom bu bëggee fen day day mel ni ku feebal. kan kan kan kan moo bëgg feebal. ngi feebal bëgg am lu mu génne waru kaa génne. yow mi yaa bëgg a wax yow mi yaa yow mi yaa ko bëgg a wax. yow mi yaa yow mi yaa sama yaay moo jukki lan la ko wax xoolal mu kii moom daa am kii. moom mii moo ko bëggoon wax. mu ne mu ne ah fekkat mag la. yow mi yaa ko bëggoon wax yow. ah wax nga wax nga. sa nijaay moo jur moom moo jur kii. moo jur moo jur moo jur kii. yow sa nijaay ne ma kii jarbaatam la. papaam la. kii doomam la xaritam la ko tuddee benn xaritam bàyyi leen fen fen baaxul ci weeru koor fen nga de kii moo ko fen ñangu yow mën nga fen de mënu ma bu bëggee am lu fen ah bu bëggee wax day mel ni affaire bi daan kan wax ma wax ma wax ma nga muy fukki di noyyi. bàyyi li ngeen def amul yow yow yaa ko fen yow yaa ko fen. li kii seen doomu kan la laa bëgg a xam seen jarbaat jarbaat nijaay la wala. waaye nag xoolal waxuñu ko nag seen doomu nijaay loolu yi jënd wax doomam la. jaay xale yi laa bëgg liñ wax nga leeral ma ko léegi nii xaar ma guddi. waaw waaw waaw waaw waaw eh, loxo. amoon sa fit ak sa fula islam may na la nga takk quatre femmes waaw waxaale ko ñaareel la. waaye moom bi may takk benn la dëgg yàlla woon ak man. daal laa bëggoon takk moo demoon naqare la wax nga ne ko am nga beneen jabar wax nga. wax nga am nga ay doom yu bari loolu moom du waxtaanu du du waxtaanu. bi diggu kër. mais wax nga war mu leer benn yoon. ñu ñëw ci noppam. Ndiaye loo may nëbbu wax ma. waaw wax ma toog ma toog su ma dul toog ma dem. waaw waaw boo bëggee def ma def bu du yow di keneen. waaw wax nga lu leer ma xam. bu du yow di man wax na dëgg lu leer la keneen. waaw mun mun Ndiaye sama doom. waaw kese leer na leer na kese doomam la doomam la waa ñaŋ li ngay jaabante nii lan la yow tamit ñaŋ man sa nijaay laa nga naan ma sa waay man sa nijaay laa sa magu ndey laa waa doo ñëw toog sa waay bàyyi ma laisse-moi bàyyi ma sama bay wala ma doo ko ah yow loo loo xëyee tey loo bëgg kaay jël cent franc kaay ma may la cent franc soxloo ma lii cent franc soxloo ma pour mu leer lii cent franc soxloo ma yow yow si moo sax la ko war bu demee waaw lan nga mel bu demee waaw Look. Dis wax ma rek wax ma rek wax ma rek dañ commencé bu jooy bu jooy bu jooy wax ma wax ma lan la métti lan la lan la métti. tij sa nopp yi nga delloo bu baax. waxal. li jot dee jot na ginnaaw dee. waaw waaw. ba jooy ba jooy waaye yow lu xew lu xew lu xew ñànku ñànku waaw waxal amal amal amal sa fula ak ah, ah, ah, sa fay la dégg bu loole ñoo ko moom suñu kër kii. noppi ñëpp si noppi bàyyi li ñuy def. est ce ñu amal si kër ñu dañ dem. waaw waaw dañoo sonn. dañ dem surtout. héberger la ñuy wax déedéet héberger sa sa jabar ñu ne déedéet say doom di ñëw pour lan. foofu boo ko bàyyee. waaw. dinaa muy sur ay garage fii ci kër gi. fii ci kër gi ay garage. waaw waaw parce que dañoo jàppee ay dof ay dof la ñu teg ay dof. léegi. wala wala wala wala femme bi femme bi femme bi boo xam. woo woo woo booy bi dig ñu jël seen bagage ne caa ca xaj yow nappi rek nappi rek eh eh madame et femme tànn pañ kaa dem fii ñun ñëpp génn leen ñun suñu kër baay ji kenn du ko nangu kaay ani ani seen seen seen doom bi seen doomee seen doom kaay ñëw leen ñëw leen ñëw leen fii taxaw leen fii ñàkk kaay taxaw leen taxaw leen rek te bu leen wax ñu noppi leen rek dañoo am lu ñu wax taxaw leen rek dañoo am lu ñu wax amuñu dara la ñu wax waaw yow la yoo xam. maa ngi lay dégg. léegi nañ ba pare. waaw waaw. divers lañ toll divers. divers. waaw waaw ñëwal divers. nga la lañ bëgg. Hmm. yow fu la miyee yow la gaa ñëwoon nga defi at dem takk yi indi gannaaw vingt at indi sa doom waaw. ki bi def la de vraiment day at sama njaar mooy ñëw ak sa yeneen Talonho lu koy xaar ci kër gi liñ soxla mooy nga génn yaa ñoom nga dem nga amoon ñu kër. xoolal eh wax bu ko raay raayal xam nga lan la nijaay. ñu dañoo sonn. fii suñu kër bàyyi la. bu fekkee da bëgg kër yow sa njaboot. ngeen ñibbi ca dëkk ba wala a génn luye gi ci biti ñun dañoo soxla suñuy kër soxla suñuy néeg soxla suñuy jabar soxla suñuy ay doom. waaw loolu lañ bëgg. ngeen jàpp gis ñun ñaar ngeen jàpp ne ay dof lañ. xam nga ngeen xamul ak jow mooy kayitu kër gi seen tur yéen ñaar ñëpp newu ci loolu ngeen xamul bañ ko changé yàgg na fi mu toll nii nag yéen yéen a war a régler wala ngeen génn parce que fu ma leen yóbbu kayitu kër gi sama tur lan parce que ba ñu xamee ni wéru leen àndu la nag seen sago kii reew na ba buccatiku yow wéradi nga ba këlbatiku ca la ñu jël kayitu kër gi man seen nijaay ñu def ko ci sama tur te mu demee koo xaar teew. waaw tey gën ci yow. koo xaar tey gën ci yow. gën ci. boo boo ko joxoon ñaatee man. tegal xeer bi. jo nan lay joxoon sama mag. tegal xeer bi. fii suñu kër nan lay joxoon sama mag. noppi. waaw jaw réew a def. tegal xeer bi yow. fi kenn xaañantew fi li ma wax daal c'est clair. suñu yoon nekk si da ngeen génn par la force ngeen bëggee daal ma génn kayit gi ngeen xool. ngeen génn par la force. waaw. man. da nga ne woo doomu chef de quartier bi. parce que déjà Katim daa feebar damay woo doom ji. mu ñëw fii mu lijjanti ko. ma wax mu nee. jeex na lijjanti ko dem leen. léegi nañ dem ba chef de quartier. loolu rek la woon. waaw loolu rek la woon nañ leen dugg. jeex na nañ dugg ba chef leen eh. ah. <laughs> eh, ñëw leen ñëw leen. non saf na de ñëw leen. waay mooy mooy doomu laaw loolu la rek. yow. mais mooy waaye dëkk bi kenn nag may lii rek ci ko. kon da nga gaaw a songu rek songu. ndax songu du door. day door kii day dof leen. oui dafa négocier. dañuy door. léegi soo laal. pas de problème. iya. kii mooy émission waaye.